waaw maa ngi sant yàlla di julli si Baye Laye Aliou wasalaam. mu seetaan sant na la sant nañu. waaw. waaw damay wax rek si làmb parcelle. yaa ngi dëgg booy gar 2 bi bëree maa ngi gis ku ne yéen ngay timal micro ñu war a waxu ñu noo war a wax. booy bi suudóor la woon. ñun maa ko jëkk jox ngemb. billaay wallaay talaay télé laay waxe waxee Sénégal ñëpp di ko dégg maa ko jëkk. li wax kay mi ngi wër àdduna. waaw maa ko jëkk a jox ngemb ni nga yaa ngi dégg ñun xam nañ lu bari si moom yar ka biñ koy wax gëmal gëmal lii la woon lamba téere yi lamba fayul naar bi xoromam mais booy bi moog Siteu bi leen géewalee billaahi wallaahi talaay la koy daan. garga mi garga deux. non champion la moom mais xam nga la moo ma jaaxal comme yow xam nga ko yaa ko njëkk a takkal ngeem mu bëree. waaw kon naar baa ngi nii aatu réer na bi ñu doon wax. aatu feeñ na yow yaay aatu. man léegi nag. Mhm. man ñeenti at yu mu toog bëreewul presque. waaw war a bëree koo xam ni dafa compétir. waaw tey sa mbër bi nga xamoon est-ce que moom ngay xamaat ci biir géew est-ce du am dara lu ko jaaxal. waaw grand yaa ngi may laaj question ma neex pap ku xam làmb nga xam nga boo toogee liggéeyoo nit ñi di liggéey da lay raw loolu dëgg la mais barki Demba Ndiaye man dama xam làmb dama dem seetlu ko dem ba fi muy entraîné ma gis Modou Lo waxtaan ak Modou Lo waxtaan ak Papa Sow waxtaan ak Balla Diouf lin ma wax ma dégg mais bi booy bi defee résultat laa xam ni man xam naa ni perdoon na réseau mais ñëw na. perdoon na réseau mais ñëw na. manque de repère maanaam du am. Pape làmb ji bu amee cinq minutes cinq minutes bu ko amee ma xam ne ma li ma doon déggoo di la làmb ma xam ne duma ko dama lay Modou Lo bi muy bëre demi final moog Mbaye Guèye maa ngi taxaw Eumeu Sène Ouza inde set. ay wax lu yàgg. Modou Lo su ma lay wax si moom boo ma jëlee interview ma lay wax si li ma lay wax ni dugg ak génne gis nga booy bi nii yàlla nu yàlla may jàmm Pape Malick di ma introduire waat biir stade am biir stade. kii xam na ma xam. bu làmb ji jeexee dañuy waat bu làmb jeexee dina la wër ba fi nga nekk. moo tax dina ko daan billaahi wallaahi tele laay waxee bu koy daan jël bu rëy la koy daan. gaay voilà kooku ku xam champion bi la. ku xam champion nga ni ñaari baat waaw. ñaari baat ñoo ngi ñëw fi ñun tay jii nii jeunesse sa parcelle. jeunesse de Fadia jeunesse de première tranche. ñëw fii soutien à Garga 2 ci kaw président Lat Diop. Lat Diop moo ñëw yabal ñu fii pour ñu ñëw jàpp politique wala non politique laajal góor a wax làmb nga Lat Diop loo ci bëgg wax ma décortique la ko loo ci bëggee wax ma ci champion bi gëj nga gis lu mel ni Garga 2 li mu def nii tey gëj nga noo gis gëj nga bi mu indi gëj nañ koo gis ci moom Mama Lamine Mama Lamine bu mamee ñëw xam nañ bërëm parce que bërëm bu ñu arbitre soufflé moom day demu jóg bu ñëwee nag dañuy daw daje barke alxuraan bu arbitre soufflé bu Mama